message bi mooy ah adduna si xam na jaxa jaxasoo na te fu nekk am na ay scène de violence ay scène de terrorisme ñi nga xam ne dañuy mbubboo religion bi dañuy euh, mbubboo turu yàlla di def ñaawteef loolu contradiction la maanaam mënul ànd ndegee yàlla day oote turu yàlla day oote cofeel ak euh, respecter sa morom jox sa morom cër te boo naree def li nga xam ne dafa safaanoo ak loolu li nga xam ne àndul ak loolu loolu day tilimal turu yàlla day tilimal diine bokkul ci diine ndege diine coofeel lay ootee di jëmale nit ñi ci yàlla li nga xam ne day xaajatle nit ñi àndul ak loolu loolu day tilimal turu yàlla day tilimal diine bokkul ci diine ndege diine coofeel lay ootee di jëmale nit ñi ci yàlla li nga xam ne day xaajat la nit ñi loolu bokkul ci diine te war nañ ko moytu bu baax a baax te maa ngi profité ci seen micro yi ndax ñaan ñëpp ñi nga xam ne ay gëmkat la ñu mooy ñun ñëpp waa Sénégal ay gëmkat la ñu nañu ànd euh, juboo ànd dénoncé loolu ndax ñeneen ñi nga xam ne euh, ñu ngi jóge feneen ñu bari ñu ngi jóge feneen ñu ngi bëgg a yàq xel mu ñu ngi bëgg a yàq diine ji ñu ngi bëgg a yàq diggante yi te loolu bokkul ak diine ndeke diine day defaral diggante nit ak nit di defar diggante nit ak yàlla